c'est la même chose lu faut débat tu vois le prix am nga sànq yow ak Birame yéen a doon waxtaan le le BRT mais BRT bi xaalis la jar. man de BRT amu ci problème. le BRT ils ont investi. des milliards et des milliards. donc c'est pas parce que les Sénégalais sont fatigués que nga ne da ngay jël jaay ticket bi deux deux cent francs donc le prix. Euh, transport dafay obéir à une logique économique. mais quand même c'est le ministre qui a qui l'a signalé c'est le ministre qui l'a dit. qui a dit qui a parlé des prix francs francs on va essayer de voir si toutefois mën nañ ko wàññi wala yooyu. ce que je veux dire. même que c'est là que le débat est... officiellement ils disent francs. mais loolu c'est calculé. Mhm. par rapport à l'investissement par rapport à la rentabilité. du, de, de, de, si. le BRT marche et que ñu gis ne rentabilité bi gaaw na mais loolu mën nga wàññi prix bi mais su fekkente ne rentabilité bi gaaw na tu as des gens qui ont investi de leur argent mais tu peux pas te hasarder à baisser le prix mm-hmm. donc prix dafa dafa obéir à une logique bi nga xam ne c'est pas que man bëgg naa ma man ko def déedéet mën nga bugg sax def trans prix bi 300 francs wala 400 francs mais économiquement soo ko defee sa entreprise day fay. Mm-hmm. et je pense que c'est la même chose donc pour le yu ñu doon ñu doon xaar xam dem dama ñu doon waxtaan Sonko dina génn ak Diomaye dinañu baisse les prix tey. ana ana démb la ah, waaw ana ana baisse prix bi. mais j'aurais dit qu'ils pouvaient pas ne peuvent parce que un prix c'est pas c'est pas parce que tu veux. Son Sonko xamul sax ceeb bi fan lay jóge jógee <laughs> yi nekk noonu. ya y a des gens qui savent acheter le riz qui le transportent qui l'amènent au Sénégal mais ñooñu soo waxtaan ak ñoom pour nga mën a baisser les prix c'est pas possible et je pense que pour man bon vraiment c'est euh, Sénégalais yi bon ak opinion je dirais particulièrement les, les médias il faut expliquer aux gens ce ce qui est possible ce qui est possible ñu bañ a jiñante cest à Euh, defoo lii kii def na lii kii def non c'est pas vrai le débat économique il est économique maintenant suñu bëggee def débat religieux débat politique on fait nos débats mais l'économie ne ne fonctionne pas sur la base d'état d'âme honnêtement moi je di il faut dire la vérité au Sénégal am na ay discours bi nga xam ne da ngay nax nit ñi pour rien l'économie elle a ses lois elle a ses modes de fonctionnement Sénégal mënu ci dara c'est comme ça que malheureusement que que que, ça marche et, je pense que nit ñi bëgg nañu la baisse mais pour moi euh, ils ont identifié yenn produits yi ceeb diwlin suukar et cetera mais il faut qu'ils discutent avec les opérateurs on l'a vu et revu gouvernement toog fixe prix les les les vrais acteurs bañ on le voit avec le par exemple prenons le pain parce que duñu leen ci impliqué peut-être moo tax. Ah, mais le pain tout le monde prend le pain chaque jour du matin au soir ça fait partie de notre existence mais boulanger suñu la nee ñett ñett la. Mm-hmm. donc je pense que il faut que ñu waxante dëgg. mais wax aussi li nga xam ne lii mën na am wala lii mënul am naka la ñuy fexe ba dund bi gën a oyof pour moi c'est vraiment quelqu'un l'a dit hier la vérité des prix. c'est-à-dire c'est la vérité, vérité du langage qui nu manque mmh. que se dit pas la vérité soit yaa ngi ci nguur nga jéem a nax ou soit tu es dans l'opposition nga jéem a nax mais ku fa mën ci fal soo ñëwee la réalité elle est là elle na bouge pas